li ñuy ñaawlu la parce que quand suñu wargal la pour ñu sécuriser nit yi euh, mais comme euh, ni ngeen ko remarqué yéen ñëpp band yi souvent euh, moyens yu ñu utiliser disons moyen moderne la dinañu si adapté mais surtout bu ma ñëwee justement parce que ma tukki woon def nañu benn réunion d'urgence de sécurité pour xool encore yan jumtuwaay la ñu war a teg pour gën a disons quand même aar nit yi et de toute façon suñu obligation la on est obligé. Euh, de tout faire pour encore euh, gën a yokkaat quiétude bi ci population yi yooyu ñoo ngi ci liggéey incha allah ci fan yu néew encore di dinañu defaraat benn dispositif bi nga xam ne dañu gën a mun aar euh, dison citoyens yi. li ma ñaan aussi tout simplement mooy que Sénégal yi quand ñu am réflexe au moins bu ndaw. parce que très souvent nit ku ñu agressé rek moo ñëw di porter plainte mais wane na ne def nañu ko agression waxu ñu gis nit ki yore jaasi nga song ko déet kooku kenn laaju ko mais nag aussi nga mun ko signaler quand même à partir juste de téléphone.